Conseil sénégalais des chargeurs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 jëm ci procès Karim Wade Khalifa Sall ak lu soxal wàllum kër yi journal bi nee na mbiru Karim Wade ak mbiru Khalifa Sall ak mbiru kër yi Félix Antoine Diome aw turam jaba jonge na fa maanaam fasu na fa loola ñi nga xam ne ñoo ko jege daan nañuy wax ni nit la koo xam ne ku am rigueur la maanaam ku rigoureux la expérimenté ku am xam-xam nit ku discret nit ku efficace ku xam li muy def avocat yi nga xam ne jege nañu Félix Antoine Diome liggéey ak moom xëy nañ ci a kaay gi di réew mi quotidien xëy di nettali daat gàtt ab liggéeykat la jàmbar la xam na li muy wax xam na li muy def réew mi quotidien xëy ci parcours Antoine Félix Diome fi mu juddoo ba fi mu teere jamono ji journal bi bàyyiwu ci dara wax nañu nañu xombal la juddoo ak ni mu jaare lycée Malick Sy bu Thiès ni mu jaare ENA génn réew mi dem États-Unis nekk parquet bu jur Diourbel ak temps fort yi gën a fës ci àtteb Khalifa Sall Karim Wade réew mi quotidien bàyyiwu ci lenn ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal naan ñu moom Félix Antoine Diome kii mu fa wuutu di Aly Ngouille Ndiaye li tax ñu dàq ko journal bi nee na journaliste Maître Adama Gueye andi na ci ay leeral daat nay wax ne Aly Ngouille Ndiaye bu ngeen gisee ñu dàq ko li ñu ko dàqee mooy da doon jéem a espionné ki nga xam ne mooy Macky Sall loolee sax njiitu réew mi nettali na ko Boubacar Camara mi nga xam ne moo nekkoon ci coalition jot na bu Ousmane Sonko daal di cay génn journaliste bi di Adama Gueye moo ko nettali ci page Facebook am yéen a kaay gii di daat nay wax ne Idrissa Seck dugg gi nga xam ne dugg na ko ci gouvernement bi yëngal na parti réew mi ndax cadre yi am na ñenn su dañoo mer ba mara détaillé ndax ànd ñu benn yoon ci Yankhoba Diattara mi nga xam ne tabbu na nañ ko ndax la ñu koy tuumal nee nañu ay jamono épinglé woon nañ Yankhoba Diattara ci lu jëm ci yorin wu baaxul ci mairie bu Thiès Aly Sele mi nga xam ne tamit def nañu ko ministre ñoom nee nañu kooku paala ndax sax moom ak Idrissa Seck leneen li nag mooy lépp ñoom dañoo gis na dañu ko jël jox ko waa Thiès laas yéen kay mu ñu xamal nañu en tout cas li amba des Idrissa Seck danañu ko natal budget xam ne toll na si juróom-ñaar ci ay milliards lii mi quotidien le soleil xëy ci Ousmane Sonko mi xam ne génn na na pëcc xoogu rëy moo fa am yéen kay Vox Populi moom li mu ko gisee mooy Macky Sall ci boppam moo tas coalition jot na bu Ousmane Sonko ndax ginnaaw bi mu recevoir ki nga xam ne mooy Boubacar Camara fale coow la commencé Ousmane Sonko amatul xel mu dal ci coalition bi dem na ba jàpp ne ak pëccëxoo am na sa génn na ca moom usman Sonko yéen a kaay gi di direct news nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall messi dëgg la ci wàllum politique ndax Macky Sall ni mu tasee parti bii di PDS tas parti socialiste tas AFP coalition Idy 2019 coalition jot na bu Ousmane Sonko yéen a kaay na Macky Sall ci boppam moo aay ci parti politique wala coalition ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon doon mbong mbong lu nekk ci biir APR ñooñu ñëpp Macky Sall da leen a suqi ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Aminata Touré ba ci Makhtar Cissé yéen a gi daan sa yokk sax ne Front Résistance ma Macky Sall moo ko tas journal bi du Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu remaniement bi Macky Sall def ak bi mu yaatal tax na pëccëxoo gu rëy am ci opposition bi yéen a gi de la Tribune nee na Macky Sall star la mooy staru opposition bi ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi lieu ñu nekk fi di wax jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund déedéet ci Macky Sall la ñuy xëy ci la ñuy gont maanaam ci Macky la ñuy wax yéen a kaay gii di laas daan nay wax ci crise de confiance bi nga xam ne am na ci classe politique bi ci Sénégal ak Macky Sall mi nga xam ne coalition bu mu gis daf koy tas parti bu mu gis ngay am doole Macky Sall tas ko ndax parti bi di LD Macky Sall tas na ko AFP Parti socialiste PDS idi 2019 coalition jot na bu Ousmane Sonko yéen a kaay gii di les échos nee am na benn punkal boo xam ne Ousmane Sonko la jàppale woon ci élection présidentielle yi ñu génn yàggatul dara dana bàyyi Ousmane Sonko dem ànd ji ak Macky Sall yéen kaay gi di évidence nee na lan mooy ëllëgu ñi nga xam ne waroon nañ parti Rewmi bu Idrissa Seck ku ci mel ni Omar Gueye Talla Sylla Omar Sarr Maître Nafissa Diop Cissé Modou Ndiaye Rahma yéen kaay gi du l'Observateur dikk na nag ci ay leeral ndax nee na reddition des comptes mbir ma commencé na ca OFNAC Aminata Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Makhtar Cissé ñii ñoo ngi leen di xaarandi ca OFNAC jamono ji Benno Bokk Yaakaar bëri na ci ñoo xamante ni mer nañu ba maara yi surnal bi di libération wax ci wàllum mbëkk mi ñi nga xam ne ñooy jil gaal gi Barça wala Barsaq am na ku ci nettali nee na gaal gi nga xam ne jëloon nañ ko ba ñuy départ 162 ñoo si nekkoon ba ñu demee ba teeral lu toll ci 85 ñoo sa des ñu bëri dañoo dee ci biir géej gi Dakar Times nee na organisation internationale bi yëngatu ci wàllu migration nee na benn fan ci weeru octobre jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru octobre lu toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent daan nañu ñàkk seen bakkan ndox mi ci déndu Afrique yéen a kaay gii la témoin dikk na ci giita ngaas ak ñol-ñol ji nga xam ne moo am diggante école privée yi ak waajuru xale yi ndax école privée yi dañoo bëgg waajuru xale yi fay ñetti weer yi nga xam ne jànguñu ko ci jamonoy coronavirus waajuru xale yi ñoom chantage la ñu ko jàppe waaye nag syndicat bi ëmb jàngalekat yeeg association consommateurs yi ñoom parents d'élèves yi la ñuy jàppale waaye nag noppi gi ci état bu Sénégal noppi loolee moo leen jaaxal yéen ne kaay gi de la turbine nee na nag révélation ko mbuut yi nga xam ne Thierno Alassane Sall daat na koy sulli ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal ne ay lóobal loo xóor ak i ak i tojaanga daf see am loolee Macky Sall moo war a wax dëgg gi askanu Sénégal yéen a kaay gi di Stades nay xëy ci match bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau waaye nag am na ay joueurs yoo xam ne jamono ji ñoo ngi ci forme ku si mel ni Sadio Mané Edouard Mendy ak Alfred Gomis yéen a kaay gi di sunu làmb nee na Bira Sène mi wuutu Aliou Sarr ci bopp CNG ni ki démb daat nañu koy samp ci teewaayu ministre Matar Ba moom Bira Sène daan nay wax ne tàllal na ñëpp loxo ngir ñu jàppale ko ngir ñu liggéeyal làmb ji ministre Matar Ba daat na koy wax ne ko mboolem jafe-jafe yoo xam ne làmb ji am na ko ay bés bi